am xéewalu gaay yi gis ngeen liggéey baa ngoog liggéey bi nga xamante ne at mu jot mbooloo mi nga xam ne ñooy doomi dëkk bi ñoo àndandoo di ko liggéeyal sëriñ Touba gis nga bawun dara gis nga wëlis yaa ngi nii liggéey bi nga xam ne ndawi Touba yi at mu jot ñoo koy def muy waa mooy bul ak yaas di ko liggéeyal Serigne tubaa Cheikh Saliou Mbacké di ko yóbbu nag ca sëñ Cheikh Saliou mu jox ko donga yi tey nag ba mun dara gis nga liggéey baa ngoog camion yaa ngi nii ñuy duy lépp a fi jege sil ñëwal ah gis nga tey ji gis nga ni gaa ñu génne matelas yaa ngi nii ba mun dara gis nga mbasin yaa ngi nii jëlal ma mbasin yi dañoo ñëw ba ñëw andi mbasin yi tey mbasin yi nag xam nañu sëñ Cheikh Saliou ku mas a wàcce alxuraan rek mbasin yam lay jox a ngi nii muy mbasin yu bari yu bari yoo xam ne gis nga ko mbooloo mi ñoo ko jël gis nga taxawaay gis nga murid saadax yi jàmbaar yaa ngi nii sëñ Tuubaa rek la ñuy teel waaw waaw jërë ngeen jëf gis nga ko dara desut. ñoo ngi siyaare mbokki jullit yëpp ci bis bu tedd bi di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di sant yàlla bu baax nag moom mi nu may nu fekkiwaat ko ren di ko ñaanaat di ko yalwaanaat di ko saraxuwaat mu bàyyiwaat nu fi ba nu fekkee déwén ak yu ko weesu yi ci kanamam yëpp. Cheikh Mbacke ni nga ko waxee rek euh, ñun ay jaami yàlla lañ waaye alalu Serigne Touba lañ suñu bunt Serigne Touba nag mooy Cheikh Saliou Mbacke suñu euh, mbooloo mi nag moom ñun dañoo ne ci kanamal waaye duñ ci dara yéene lépp rawatina ki nga xam te moom mooy sama lépp di sama xarit di sama mag di sama lépp ëmma ëmma ak fayam ni ma ñàkkee ak fayam nag noonu laa ko ñàkkee ci ñi ànd moom ñëpp kon li ci daal nañu bàyyi ba egg ci sëriñ bi incha allah ñu eggale ko. ñu kontaan loolu di xamal ni yëf yi at mu jot day gën a yokk ndax mbirum Sëriñ Tuubaa moo deme noonu ren di yokk nan lu ñu daawul def rek def nan ko ren ji ah waaye sëriñ bi moo toll noonu ak liggéey sëriñ tubaa ah ma lay laaj ci ba xam nag loolu nan la waaye mbirum Sëriñ Tuubaa rek a toll noonu. waa loolu bu ñu ci gis suñu bopp bu ñu ci bopp. ni nu ñàkk a manee reesal nu ñu xeploo noonu la ñu liy umpe mbirum sëriñ bi wax nga ko lenn lu ñuy tudd tudd sëriñ bi jëmul kanam xawma ko te keneen xamu kon nag li lenn la ci pàcc yi ñu war a liggéey sëñ bi rek kon faaw day yokk rek ndax yàllaa ko yokk ku ànd ak ku yokk nag doo mën a wàññeeku. jërëjëf Mbacke samay mbir ci dunya lu mujj a ëpp la wéy ca mbóot ya lu nu sëñ Tuubaa mu dagg iteem yëpp ñëw muy Muntaxa waaye nag waayam jàmbaaram. xaritam soppeem ku mu yàggal lool ñu xam ko muy Signor Lo liggéey bi mu liggéey ci liggéey boo am solo di ci taxaw taxawaay am solo moo tax bu wootee Touba Gone yëpp ànd ak moom liggéey bi sëñ bi kon nag Mountakha loo ci mën a seere ndax kontaan nañu de lii daal an mu jot Signor ànd ak ñëpp def ci taxawaay am solo te sa xarit. Alaaji Seex Mbàkke lii dañuy ñaan yàlla ni nu ko tàmbalee mu egg ci alhamdulilah rabbil alamin ndax chaque année dañ koy def Signor Lo day ñëw. ànd ak ay mbokki taalibeem ay xaritam ay wëlëreem ak i mbokkam ak taalibe sëriñ Saliou moom nag boo ko séenee muy dox bu laajte Serigne Saliou la bëgg moom lay walle waaye yàlla sunu borom it suturaal na ko ndax mën ngaa doonu murit ca ñi ngay àndal du ngeen bokkub gis-gis waaye moom fi ko yàlla sunu borom dimbalee mooy ñi muy àndal ñëpp dafa bokk ñoom gis-gis gis-gis bi mu am nag mooy sëriñ Bamba ak waa këram lu baax li nga xam ne daal moom la liggéeyal Serigne Touba waa këram. di ko ànd ak ay xaritam ak wëllëreem yàlla na leen Serigne Touba mi nga xam ni moo am fay cay fay ak borom Touba Serigne Saliou yàlla leen fay. xam nga sëñ ordinateur bu jógee doone Touba yëpp jóg ndax liggéey bi mu liggéeyal sëñ Touba dafay dëgg ci moom. ba ña ngi te naa la yow yaay ndam li nga liggéey rek doy na ndam lislaam bi jël nga raaya ba waxal kanam tàndar maya tapp nga sangub xawsu ya ndamul ci mboolem pàkk ya leeral te yaatal xutbu ba tapp nga koog liggéey na lool bu ëllëgee bañ di ko jal ñëpp a jaxaj ba sax ñu dul ñagam boom bu tedd ba ku deeti sàkku luy sarax ngir xam bu ni mbir nax day bëgg a xew te dunu nax ci yàlla bu bu màgg ba ci gaayu baax ya fi newoon daa dajaloo ci yow sëriñ saaliw doomi xaw suba lii lee waral mois Mouwahiboul Akyasi ndawi dëkk bi di kuréel goo xam ne dafa lëkkale ay ndaw yu nekkee ci dëkk bu sell bii Serigne Saliou Mbacke mu allaaji Bara Fàllilu moom mooy ki jiite googule kuréel ñu mën ci ràññee ku mel ni mustapha Mbacke loo kuréel googu ñoo doon amal bu ziar tey jii ci gaaw bi dëppoo ak fukki fan ci weeru tam xarit atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay gi yemoo ak le trente septembre 2020 muy ab ziar boo xam ne yile ndaw dañuy dajale seenu ñakk fàggu ci ay jumtukaay yu bari yu mel ni ki ay cin ay mbana ay basang ay dàll waaye it bépp jumtukaay boo xam ne ab donga dana ko yittewoo ñu jébbal ko kii di sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou Mbacké ziar boobu leen nag ñi ngi ko doon amal ci kër sëriñ saaliw gi nekk ci jumaay Touba. tarbiya jooy fu may jëleeti sang buy defaru nit bañ leen di roy ci jaamu ak ci jàngu ba xel kooma tuuba njàppu ndal ndookaa la gën ak njibi ngel ngeejaan goota xabbaan jul ak nga bu jooy nañ sang ba say jikko moo de alxuraan say jikko moo de alxuraan kuy jéem xuus geñ bambulaan yendu di dem ak di fanaan du tax mu jot asaka ba adduna ji boo maas foofu nga jëm itam sa maas du yombu foofa ndax sa yombu taam yow sang bi bu yàlla yàlla nag ñu fayal suñ waaja foot suñ raggi xol yow mi nga xam ne yaa amal lépp lu am ci dend ba bu yàlla yow ñoo ngi lay dagaan xaboom ba moom nay walangaan leera ngëm kulla samaan ci barki sur yonente ba Serigne Touba bi ko Serigne Touba ci dëkk ak mu jot ñu ñëw na fii dajale suñu àddee ak suñu lii nga xam ne mooy ay suñu àddee sàmm ko ci yow nga defal ko ci liggéey Serigne Touba bi ñu ñaan yàlla na mbooloo mi nag moo ñu koy wax suñu xam ne liggéey Sëñ at mu jot ñu def demee ba toll fii ñu dajale suñu addiya moo xam suñu bool la moo xam suñu dàll la moo xam suñu yére la ak luñ mën a am rek ni nañ ko yot sëriñ bi mu defal ñu ko ci liggéey Sëñ Saliou bàkke bi ñu ñaan nga yàgg fi te ak nee na moo xam ak muy suñ matelas la. nee na ak matelas yi sëñ bi damaa gàggante ne ah, ah, ak suñu yi waaw suñu matelas yi. alhamdulilah alhamdulilah mun na gan yoo xam ne. dañoo wétliku lool ñu bëgg leen a jàlle la ci daara mu doon xalaat nag mat laa yu mu leen yu mu leen yu mu boole ak ñoom ñu demandoo waaw kon xam ngeen ne am nañu tawféex ah. ndax sëriñ bi dafa wax ni dafa am ay xale gan yoo xam ne seen ñëw nañu mu doon xalaat ay mat laa far ñu indaale mat laa yi kon am nañu tawféex jërëjëf waaw ay xale gan yu ñëw war a dem ca daara ja mu doon xalaat ay mat laa ñu indaale mat laa yi mm-hmm. jërëjëf Mbàkke kon sëñ Saliou ngaa ngi liñ des ka sëñ bi ah, waaw ah, mbooloo mi la. mbooloo mi la. waaw. waaw waaw waaw ah, yéen ci lañ ko déglu ma xool. toog ci la ak si jaada yi. ak yére yi. ak yére yi. ak satale yi ak kopp yi. ak daali xale yi. ak bool yi. ak ay mbana. ak bali fëgg jaay. ah ak moom ma daal rek. waaw ah, nit doon wax dëkk bi nee nga cee boole doomi daara yi nee li ma wax léegi ni doomi dëkk bi waaye ñu boole ci dongay daara yi doomi daara yi doomi daara yi doomi daara yi doomi daara yi nee na xam nañ yittey daara lool ndax ñun doomi dëkk bi lañ waaye doomi daara lañ ndax xam nañ yittey daara jërëjëf Mbàkke nee li ñu ànd lépp dongay daara yittewoo nañ nii moom la ñuy tuddee tawféex. nee na jëf ju demee nii moom la ñuy tuddee tawféex. nee ki ñuy jëfal yàlla na nu nangul. nee ki ñuy jëfal yàlla na nu nangul. gërëmal ñu. te gërëmal ñu. nee na te mi ngi ñaan sëriñ bi. nee mi ngi ñaan sëriñ bi. sañ ca sañ-sañ ba ko sun borom defal. ca sañ-sañ ba borom defal. mu fàggul ñu ci. mu fàggul ñu ci. fu sunu yéene egg. fu sunu yéene àgg. sunu man jote fa. man jote fa. ak tawféexi jëfe jëf ji ak nangu gi faw ak ak ak ngërëm bi. Ah, ak tawféexi jëf ji ak nangu gi ak ngërëm gi kon ñoo ko déggandoo. nangu gi faw ak ngërëm li. suñ jëwriñ ja na wax ni. nee na suñ jëwriñ daan na wax ni. lu mu bari bari laaj na jëf. wax lu mu bari bari laaj na jëf. waaye jëf waaye jëf lu mu tuut tuut na wax. nee na ginnaaw gannaaw jëf ngeen jëf ju mat jëf. nee na kon rek te tàllal nangu ñaan. neen te fas nan fas rek te tàllal te nangu ñaan. jërëjëf Mbacke yàlla nañ fi yàgg te wér. ñun nag fa ñuy génn may ñu fas yàlla nañ fi yàgg te wér Mbacke yàgg fee ñëw yàgg la fekk Mbacke amiin.